waaw loolu ñu ngi koy ñaawloo trop ñu ngi koy ñaawloo trop waaw affaire nag am na yéemi na yéemi na trop waaw mais nag mënoon nañ ko doxal leneen lu dul loolu quoi waaw mënoon nañ ko jël ànd ak dal ak xel waaw bañ indi yàqu-yàqu yi quoi xam nga Mali sénégalais suñu jëlee oto malien di leen yàqu malien tamit jël oto sénégalais di leen yàqu xam nga loolu na créer leneen quoi waaw. waaw mën na ko indi kay mën na ko indi mën na ko indi parce que lii dafa xaw a doy waar. xam nga malien yi tamit ñu mënuñu seetaan seen oto di ñu leen ko yàq fii ñoom tamit bu defee ñoom tamit da leen di indil kii quoi ñu ñu ngi ñaan rek autorité ak kii rek ñu waxtaan pour affaire yi mën a fay quoi waaw ñu mën a dal quoi ànd ak tey calme. mën na jur coow moom waaye liñ ci gis daal ni jéem koo rafetal rek xam na Sénégal ak Mali moom benn la rek ay doomu aadama lañ ñëpp ay jullit lañ comme ji ñëw na rek yàlla moom dogal yàlla yàlla ay dogal ne yàlla ay def lu ne ñu jéem a baalante ak rek. daal comme ñëpp daal ci tali bi ñoo ko bokk daal ñii sëfoor lañ sëfoor lañ nañ may daan te dimbalante tali bi xadut xanaa xool yi ko waa waaye ku si ne moom boo mayee morom di nga jàll waaw jéey moom lu waroon am la rek fii moom sëfoor bi dawal bu ne di nga soge ñi toog seen kër yi soge wuñ bii sëfoor fii sëfoor du fi jóg na xaaral ma ñëw rey ay nit da daw ba soog am ga soge bu su soog moom bu ñëwee soog lay doon mais nag li waa Kaolack def moom rafetlu ma ko ndax sëfoor kenn warta yàq alal ndax sëfoor moomut bagage yi alalu jàmbur la ñu yàq ko ñu koy bu ñuy kereel lañ kereel sëfoor bu ñu ko mënta jégal te xam ne tayu ko dañ koy def sa bor waaye taal ay bagage jàmbur léegi yàq nañu oto yi malien fii malien yi yàq oto yi sénégalais réew mi lañ xaalis bi génnu réew mi waaw des kon nañuy jàmmoo rek ku war a dee da dee àdduna moom moo demee noonu ñoo ñoo yàlla moo wax ne camion bu moo leen di rey te yàlla moo wax ne ci taxi boobu la ñuy dee bisu dee moom bu jotee moom force ah, rek nañ ci waxtaan rek bu ñu waxtaanee moom soog moom moo demee noonu bu amee moom am nañu bëri deret bi duñ ko gisee rek dañuy def loo xam ne waruñu ko def sax après ñu dugg mujj di ko rëcc non non taximan benn problème moom tëli boole fi moom tëli bi boole ñun ñëpp kenn ku wàcc da ngay ñibbi sa kër fanaanuñ ci tëli gond am na ñuy am ñuy daw bëccëg ñii daw la ñuy daw ñii daw la ñuy wala nga def naka noonu